voilà mbokk yi euh, gis ngeen compétition bi actuellement fi mu toll équipe yi ñu ngi gën di wane seen bopp mais favori chaque fois dañuy wan dañuy gën di wane seen bopp parce que bari na ñoo xamante ni ñi ñu jàppoon ñu ñooy favori ci drapeau chef de l'état bi juumuñu ku mel ni euh, Fatick euh, xamoon gis ngeen lu jaloore yi mu yàgg a def ci drapeau sef de l'État ku ci mel ni jurbel gis ngeen jaloore bi nga xamante ni yàgg na ko def drapeau chef de l'État ku ci mel ni équipe bu mel ni Thiès Thiès tamit gis ngeen euh, jaloore yi nga xamante ni yàgg na ko def drapeau chef de l'État rawatina ak Dakar kon mbokk tey ñu ngi toll ci demi-finale yi demi-finale yi actuellement dañuy ànd ak yéen ci compétition bi xool ban équipe mooy qualifié final final bi nag incha allahu rabbi euh, ginnaaw suba dimanche bi lañ koy amal fii ci euh, Kaolack euh, xam naa ni suba incha allahu rabbi dañuy commencé tournoi individuel bi incha allah mbokk yi duñ ci wéet waaye di ngeen ci ànd ak wasaare làmb ci lépp loo xamante ne bëgg ngeen ko gis ci drapeau chef de l'état bi kon ñu xaar tuuti rek incha allahu rabbi ci li nga xamante ni mooy demi finale su ko defee ñu ñëwaat ci compétition bi ay ca Adama. tiir ban ceinture ceinture rouge wala bleu ndeysaan ceinture rouge wàll bee moo nekk Diourbel Fatick mooy ceinture bleu ñu ngi laale ñoom ñaar ci wàll bi nga am dakaar ak Thiès ndeysaan ndeysaan Dakar ak Thiès ndeysaan ak Thiès ndaysaan wàllu bee nga am Diourbel ak Fatick ñu ngi toll ci wàllu demi-finale yi Adama ñëwal ci dakaar bi saan compétition dakaar mooy bleu Thiès mooy rouge ñoom ñaar du yomb parce que ñaari équipe la yoo xamante ni mbokk yi ndaysaan wa ràññee nañ leen ci drapeau chef de l'État ay xale ngi noonu waaye nag compétition bi dañ leen a dañ leen a boole. combat yëpp moom la ñuy sifflé ndoo bu ñu sañoon demi-finale yi am combat bi am combat be ndaysaan Dakar mooy bleu ndaysaan Dakar mooy bleu daan na Thiès daan na daan na am na ndam ci kaw Ndeysaan dakaar Thiès ñu ngi ci compétition bi ba tey Diourbel daan na premier combat ci compétition bi dëkk sëñ Basiirou sëñ borom mbég meeg mi dëkk Mbay Babacar daan na dëkk Kàggu ndaysaan borom ngénte lu neex li daan na Ndeysaan ñu ñëw ci dakaar ak Thiès ñu ngi noonu. ndaysaan ñu ngi noonu dakaar moom dëkk aadama la la cadreur des cadreurs boobu Dakar la dëkk Ndeysaan ndaysaan ñu ngi noonu dakaar Thiès dakaar bleu Ibrahima Jonn Dakar Ndeysaan Ndeysaan dégg ngeen ñu ngi noonu ñoom ñaar Dakar ak Thiès daa mel ni am na ku fatt de Dakar cees ndeysaan ñu ngi noonu Dakar Thiès ndeysaan ndeysaan Dakar Thiès cees Thiès daan na Dakar Thiès daan na premier combat ndeysaan ngóor ñaax ak ndambe ñoom ñaar ñu ngi noonu Diourbel Diourbel ak Fatick Diourbel moo ngembo bleu Fatick ngembo rouge Ngor ñaax ak Ndambe. Ngor ñaax ñu ngi noonu ci compétition bi. Ngor ñaax ak Ndambe ñu ngi noonu. Fatick ak Diourbel. ndaysaan ñu ngi noonu Diourbel ak fatik ñu ngi noonu Diourbel Fatick Ndeysaan Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick ñu ngi noonu Ndambe ak Ngor Ñaax Diourbel moo ngemboo rouge ndaysaan moo ngemboo bleu ndaysaan Fatick moo def rouge Dakar ñëwaat na ci wàll bi deuxième compétition bi dakaar bleu Thiès rouge ndaysaan ñu ngi noonu dakaar ak Thiès ndaysaan Diourbel ak Fatick fatik am na benn ndam ci kaw Diourbel Thiès am na benn ndam ci kaw Dakar ndaysaan wala book Diourbel am na benn ndam ci kaw Fatick ndaysaan Diourbel am na benn ndam ci kaw fatik dakaar jël na tànk bi jël na tànk bi yanu na ko yanu na ko yanu jël na tànk bi dina ko daanam déet dakaar jël na tànk bi xale bi rëcc na ndaysaan munoon naa jeex munoon naa jeex nday ndaysaan munoon naa jeex dakaar ak Thiès Thiès wër na ko ndomba Dakar day ñàkk Dakar di nga ñàkk Thiès wër na day ñàkk Thiès wër na ko ndomba Dakar mbaa du ñàkk Thiès na ndomba Dakar dina ko daan wala déet daan na ko daan na ko ndeysaan dox ci diggante Ngor Ñaax ak Ndambe Jurbel ak Fatick Jurbel takk na Jurbel takk na daan na ko Diourbel daan na ko. Ndeysaan ñëw nañ. Ndeysaan Dakar a ngi noonu ak Thiès. Ndeysaan Dakar jëli na tànk ba. Mbaa dina yomb Dakar Thiès. Ndeysaan Dakar Thiès. dakaar Thiès Thiès rouge Dakar bleu Thiès moo ngemboo ngemb lu weex li Dakar moo ngemboo ngemb lu li ndaysaan ñu ngi noonu ci compétition bi toll ci wàllu demi-finale bi daw na jëli tànkam jëli nañ tànk ba daanu na daanu na Thiès daa génn na final Thiès dem na finaal Thiès dem na final Dakar éliminé nañu ko. wàllu bee ba tey ñu ngi ci jurbel ak Fatick Diourbel Fatick ñu ngi noonu ci compétition bi jurbel fatig ñu ngi ci ndeysaan mu noonu fàqat na ko Diourbel ak Fatick Ndeysaan ñu ngi noonu Tony Junior ma ngay jooy ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ba tey ñu ngi ci diggante Diourbel ak Fatick ndeysaan ñu ngi noonu ci demi-finale yi ñoom ak Fatick Ndeysaan Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick La Lyon La Lyon Thiès éliminé dina ko Ndeysaan nee naa la 2019 moo ko génnee waaye tey dafa gum na 3-0 ñu xool li des diggante nee naa la Ada Boy ak El Hadj caatu Aydala loolu géré ko ñu xool ba ci kanam lu ñuy demee Ndeysaan. ñu ñëwaat kon. ci dakaar ak Thiès dakaar moo ngemboo ngemb lu bleu li ceinture bleu moo ngemboo Lagos bi wan la ginnaaw Thiès moo ngemboo ngemb lu rouge di ceinture rouge ngemboo ngemb lu weex li ndeysaan ñu ngi noonu jëli na ko Ada Boy Bawal jëli na ko ndeysaan génn na génn na ndeysaan génn na ndeysaan euh, ndeysaan faw mu sauver l'honneur ndax dakaar ñàkk na ci compétition bi Thiès mi ko éliminé dem na finaal ndeysaan ñu ngi noonu ñu ngay lewatoo dakaar ak Thiès Dakar moo leen woon ginnaaw cees ngeen jàkkaar lool ndaysaan wàllu bee ñu ngi ci Fatick ak Diourbel ndaysaan daw na jëli ko ndaysaan Dakar jëli na waaye du yomb ndaysaan xale yaa ngi ci compétition bi mbokk yi ñu ngi fii ci Kaolack ndeysaan muy drapeau chef de l'État ndeysaan fële ñu ngi ci wàllu bee Fatick ak Diourbel ndaysaan Fatick ak Diourbel ndeysaan ndaysaan gis ngeen compétition bi mu ngi noonu rouge mooy Diourbel Dakar daw na jëliwaat daanu na daan nañ Ada Boy Bawol Thiès daan na Dakar 4-0

Fatick daan na Diourbel Espoir daa war a boole Dakar ak Thiès ngay xeex déet da ci gaay bi foo waaye gis naa xale bi nga xamante ni ndeysaan ñu ngi laale seeni biir.

ci image parce que làmb dafa am benn xar kanam boo xamante ne dañ leen koo teg yu mel ni saa yoo ko gisee rek doo ko mën a continuer waaye ba tey ñu ngi ci combat bi diggante Fatick ak Diourbel ñu ngi noonu Diourbel moo ngemboo rouge ceinture rouge Diourbel jàpp na war na ndomba wala déet lu xew Diourbel daan na Fatick wala déet Diourbel daan na Diourbel daan na Fatick daan na Adama baax na mbokk yi yéen ngi noonu di gis ci komba bi doxoon ci diggante Diourbel ak Fatick ah recours dafa dugg léegi dañuy déglu verdict bi fan la jóge mhm. saytu dégg ngeen li nga xamante ni moom la Jurbel am muy ndam bi dellu siwaat na ci loxoy Jurbel kon 2-1 la Jurbel moo am 2 Fatick am 1. ak Diourbel Dakar Thiès éliminé na ko kon Thiès daanaka mën naa ne mbokk yi dem na final final bi nag dimanche la suba compétition bi li am mooy par individuel la ñuy def compétition bi dem final ku dem final individuel dimanche incha allahu rabbi ca la ñuy fas yéene yegg ci dañ dëpp gi muy final gi gis nga avertissement Diourbel avertissement Fatick ñu ngi noonu Diourbel moo leen féete càmmoñ ngemboo ceinture bu rouge Fatick moo leen féete ndijoor ngemboo ngemb lu bleu ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey Diourbel ak Fatick Diourbel ak Fatick ndaysaan ñu ngi noonu Diourbel ak Fatick ndeysaan ñu ngi noonu ba tey dara xewagul compétition bi dafay dafa metti actuellement fi toll nii Fatick bu amee beneen ndam mën na cee génn ci diggante Diourbel ñàkk na ñàkk na Diourbel éliminé na Fatick Diourbel dem na final ndaysaan Diourbel daan na Fatick Diourbel éliminé na Fatick Diourbel éliminé na Fatick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 Diourbel éliminé na Fatick